l'Assemblée nationale, euh, le président Moussa monsieur le ministre de l'intérieur euh, Antoine Anglais, nuyu nuyu ministre du travail directeur nuyu grand frère euh, préfet de département monsieur aussi monsieur Ndiaye de Sénat monsieur le ministre tay nak dañu ñëw pour chambre budget bi nga xamanteni ni wara doxal mbirum intérieur muy sécurité élection ak li nga xamanteni yépp aaju na ci yu mel nonu mu toll ci 149 milliards francs CFA yu top daw 129 milliards la woon yu avons une augmentation 19 milliards 600 yu top. monsieur le ministre mu di bis boo xam ni gis nañ ci programme bi nga xamante ni joxoon nga na ko par rapport bi nga xam moom la ñu lire mu am si yoo xamante ni defoon nañ ko si bis 2020 boo xam ne ñu ngi ko woote woon ngir mu waroon a doxal yenn yi te gis nañ si ay manquement biñ la ko laajee am na yaa ngi jéem a sax wax di jéem a wane mais li nga wane ak li nga wax si dossier bi bokkul ak li am si terrain bi ndax am na yoo xam ni def nga ko si ci li nga xam mooy dossier bi te loolu mi ngi woon ci

ak recours yi nga xamanteni ni yow si jëm bop jox nga préfet yi ndigal ak sous préfet yi pour ñu attaquer li nga xamanteni ni décision de justice bi nga xamanteni ni opposition bi dugaloon ay recours cour de li nga xam moy cour de compte jox len cour d'appel jox len li nga xam moy deug yow nga taxaw ni il faut que nga dindi lolu lan lo moy ka waral ndax japp na rewum normal en tant que ministre de l'intérieur waruloo jox ndigal ay préfet ak sous préfet ngir ñu attaquer de monsieur le ministre le plan Orsec bi nga xam déclaré il y a 27,5 milliards francs CFA nga dem Kër Massar nga fa ma wax ak yow téléphone ni la Touba nga Touba président la ndigal nga Touba fa ay ba fi may waxa ya plan Orsec juróom-ñetti fukki car manam pompe manam li naan moto car pompe yi auto manque yi mo ñew Touba te ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye bi fi nekké biñu déclarer plan Orsec indi na li toll ci 300 yi nga xamantene moy moto pompe yi auto pompe ba paré daf leen mankal seen ndox ba paré soti leen souf ba paré jox leen ay matla bëgg na plan Orsec bi nga bloqué pour Touba. nga wax ban problème nga am diggante waa Touba parce que waa Touba sonn nañ coono boo xamante nii jàppoon naa ni le président de la République joxoon ndigal ci Touba war nga ko joxe mais seet nañ nii yaakaar bi ñu amoon ci yow li nga wax en tant que talibé mais wax dëgg yàlla Aly Ngouille njaay moo la gën a jege population bu Touba. monsieur le ministre li nga xamante ni moo jëm ci mbirum commissariat bu Touba fi may wax ak yow mii may wax ak yow mii mii amuñu groupe électricien bu courant coupé duñ liggéey. dañoo manque équipement dañoo manque ay moyens même essence sax dañu am ay problème monsieur le ministre lu jëm ci commissariat bu Mbacké fii may wax yow depuis 2020 2021 bii nii waxoon ngeen da ngeen def commissariat boobu mais France daal la xëddeen monsieur le ministre à 2019 le ministre de l'intérieur Aliou Ngouille Ndiaye ñëwoon na Mbacké dem ci sancaan yi mu waxoon dana leen def deuxième commissariat bu Mbacké fii may wax ak yow dara amu si te ku ne xam na ne sécurité bi nga xamante ni manqué na ko au niveau de département bi ñi nga xam ñooy def ñaawteef yépp ci côté boobu la ñu duggee pour ñëw kon jàpp naa ni loolu war nga xoolaat bu baax a baax xaalis bi lay dugal ak foo nga xam foo nga koy dugal monsieur le ministre lu jëm ci mbirum Sénat ñu jox ko 3 milliards virgule 394 milliards millions te Sénat boobu amul benn njariñ li nga xam mooy population bi te ña fa nekk dañoo retraité bëgg nañ ñu wax si loolu monsieur le ministre augmentation li nga xam mooy gouvernement électoral daaw 2019 2020 joxoon na leen augmentation cinq milliards francs CFA ñu ne ay carte d'identité la leen jox ren jox na leen 10 milliards francs CFA ñu ne ay carte d'identité la ñuy joxewaat loolu bëgg na augmentation nga leeral ko askan te carte d'identité yi nga xamante ni ministre koy def ak bi soxla nañ ko du jotagun si kon loolu boo xoolee li nga xam moo jëm ci mbirum opposition bi nga leen traité li nga xamante ni monsieur le ministre war nga see wax mooy normal assemblée de l'État bu ñu koy jox dañ ko war a jox

te bokkuñ ci benn parti moom ñu mën di diriger ndax CDC mënul dafa déposé xaalis boo xam ne day def ay caution pour def élection ki nga xam moo war yore xaalis boobu noonu war a def transparence moom mu jóge foofu dem di wut candidat est ce que xaalis bi ñuy déposé ñun opposition bi du moom da ngay dem campagne par doog a ñëw rembourser ko loolu war nañ see seetaan ndax jàpp naa ni am na loo xamante nii ñun fi ñu toll yéen da ngeen di jàll am na ko la fi remplacé woon am na ko fi remplacé li la fa di sa bëriwul fii ak deux semaines da nga fiy jógee mais li am solo mooy organisation élection yi bëgg nañ ko bëgg nañ tamit xam élection locale yi ak élection départementale yi ak élection yi nga xamante ne mooy législative yi ñu xam ba xam est-ce que dana am wala du am ba pare monsieur le ministre assemblée national 165 députés la war doon 164 moo fi nekk war nañu am élection bu ndax loi bi ak constitution dafa wax ni bu fekkee am na am député yoo xam ne dañoo faatu amul ku leen remplacer dañoo war def élection partielle te fii may wax a am na élection parcelle boo xam war naa am euh, boo xam ne war naa am ndax Mariama Ndiaye mi faatu woon kenn remplacé wu ko amuñu suppléant amuñu titulaire kon war nañu def élection foofu na parcelle ndax loolu la xam moom loi bi ma la consomme ma je vous remercie